li xew TV maa ngi leen di ziar lu yaatu di leen bëgge euh, di rafetlu seen liggéey bu baax a baax a baax euh, juste ma bëggoon a indi sama kii sama version ci série Golden muy série boo xamante ne vraiment c'est très important série bu am solo la euh, depuis biñ dalee ba léegi nii juste rek. sama xalaat bu gàtt ma bëggoon a joxe si London Lady bi nga xamante ne ni moom moo jóge extérieur moo jëm si ñëw ba fii nii war a job euh, mu ñëw ba fii nii euh, question de jalousie war a mën a tax mu koy won ginnaaw mu koy won ginnaaw te ne daf ko bëgg lool euh, selon man nit boo ko bëggee dang koy danga koy jàppale E, dara mënu la pousser aussi nga koy won ginnaaw siw bu fekkente ne tey jii nii mbëggeel bi muy woote ci moom am na ba pare mu war ba tiku di dox ba fexe ba daaneel ko selon man loolu bu paasee moom après bu xalaatee moom dana am lu ko metti trop da dana am lu muy rëccu encore une fois ki mun a def ko bëgg muy James bu xamee ne moom moo dox ci tànk yu ko yàqal kooku dootu ko mos a bëggati ci live am ndax moom couleur famem lay défendre kon bu ko ko yàqalee rek yàqal na ko live am quoi selon man euh, deuxièmement Fadel Dème luy je lui déteste ci ci benn part parce que moom day wax ba pare tekku bu waxee ba pare ne parole de Fadel Dème mel ni kuy tekku mel ni moom rek moom moo am doole et j'aime pas vengeance vengeance day ëpp mais moom ni muy teg koo dafa day bëgg a teg xam nga boppam foo xamante ne ni day dafa dafa kawe lool quoi waaw et selon man mën na mën na mën na sax jéem di wax mais bu waxee ba pare day tekku ne parole de Fadel Dème saa ça me dérange euh, Eh, James boo xool dafa bëgg Fadel dem Fadel aussi bëggoon na James à l'époque eh, mais pour muy venger ci Mange yaayu James tax na mu boole si James bi nga xamante James bi nga xamante ne moom mooy frère am selon man c'est pas du tout normal comme liñ ko def metti na trop nag eh, te ku mu ku xool sa tànk sa diggu tànk bu doon yow tamit dina la metti mais selon jéegle jëlale mën na am et laablo les sans la famille waaw mënoon nañu regrouper waat ñu joobaat en famille xam nga fàtte loolu parce que jabaram xëj na noonu la waroon mën a demee mais mu jéegle jëlale quoi waaw parce que vengeance aussi day ëpp waaw maa ngi jéeglu ci vocal bu gudd xam naa li ma war a joxe yëpp sax matul mais bon merci beaucoup daal de votre compréhension